maa ngi sant yàlla bu baax di leen ndokkeel di leen ziar. waaw seetaan nañ làmb bi vraiment ñu ngi félicité Ouma Sène di ñaanal Sathies Sathies di wax ne lu ko dal metti na trop di ko yëgal ne moom Sathies ay mbokkam ay famille am nañ jóg ñu xam ne lamb bi moom moo ko moomoon man yàlla xam na ne faralu ma woon kenn kon bu ma seetaanee lamb bi ma xam ne Sa Thiès dañ koo seetaanee dañ koo seetaan te su kattan suñu boroom man pare naa pour jàppale Sa Thiès ak magam ak famille am ci lu ñu mun a doon pour loolu mun a deñ ci seen famille ci kattanu yàlla parce lu ko dal. xam naa ne du si moom parce que man xamoon naa ne combat bi moo ko moom waaye nag dafa dem ba si biir ñu wëlbati combat bi kon moom Sa Thiès wala ay mbokkam wala ay xaritam bu dee mu ngi may seetaan na fexe mun a jokkoo a man ma jokkoo si kattan suñu borom beneen combat bu mu amati si kattan yàlla man ma assuré ko combat bi mu mun koo gañe moom wala magam loolu pare naa pour jàppale leen te yàlla rek tax. waaw Sa Thiès moom mystiquement lañ ko daanee am na yenn yi sax nekkul ku mu bëreel moo ko def loolu yeneen ñu nekk ci làmb bi am na ñu ko fa doon xeex waaw man loolu yëg naa ko noo ñu bari dañ koy xeex moom amagam parce que jaloore bu fi def waaw ñu bari ñu ngi koy xeex te Balla Gaye ci kattan suñu boroom su fexee am sama contact wala rakam si kattanu yàlla dinaa leen jàppale te yàlla rek tax ñu mun a defaat luñ doon def si kattanu yàlla. Euh, waaw gis naa face à bi te gis naa lu bëri mu fay xew xëy na nag gars yu bëri comprendre ñu lu tax moom loolu di am parce que Balla Gaye yàlla lu mu ko jox li nga xamante ne yàlla jox na ko ko ba pare. kono dafa war a gën a defarwaatu boppam mu xam ne suñu borom lu mu ko mayoon ba léegi mu ngi koy may waaye na yàlla du maye kese yàlla su lay may tam da ngay sabablu kon na yokk sabab ci kattanu yàlla na su gisee a man ci kattan suñu borom doomu adama buy bind mënu koo tere mu gañe ko mbaam du yàlla bind ci kattan suñu borom su gisee a man dina mun a gañe ko mbaam ci kattanu yàlla loolu man maa ko assuré. waaw dañ lay yàq si si baatin dañ lay yàq si baatin te xam naa lu bari parce que maa ngi Afrique maa ngi Bissau maa ngi Gambie maa ngi Côte d'Ivoire maa ngi yeneen dëkk te waaw yàq bi daal depuis li nga xamante ne yeneen yu weesu yi xewoon na fi ci lañ leen di jaar bëgg leen éliminer si làmb ji kon si kattan suñu borom ñooñu bu dee ñu ngi may seetaan wala ay seen mboq nañ ma jéem a contacter si kattanu yàlla ma jàppaleen te yàlla rek tax incha allah rabbi waaw xam nga favori bi moom suñu borom rek moo la mun a wax kii may favori parce que ñu bari ñu ngi wax ne si heure bi bu ñu nekk nii nii nii nii moom tafaati moo yor ndam bi waaye na si kattan suñu borom su jotee a man billahi wallahi tallahi yàlla rek laa waat ma jël ndam li jokko moom Balla Gaye loolu moom man maa leen ko assuré barke rasulullahi man maa leen ko waatal su gisee am man ma jokko ndam bi doomu adam bu yàlla bind mënu koo dindi si kattan suñu borom loolu moom suñ ko defee yàlla dina leen may ndam zairan wa baatinan